asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu daaray al cheikh Saliou Sow seen jotaayu laaj ak tontu ñoo ngi ziar ñëpp di nuyu Ahmad Sow nuyu mbokk mi Ahmad xam naa ne laaju mbokk mi dama jàpp ne dañ koy far def benn tontu rek ndax yim laaj yëpp daal ñoo bokk fu ñu jëm mooy lépp ci azakaay mburum koor kon maa yaakaar dañ ciy def benn taxaw seetlu bu xaw a yaatu mu mën a làmboo lépp waaw azakaay mburum koor Euh, dañ koy tuddee sadaxatal fitri dañ koy tuddee euh, zakatul fitri waaye ñaari tur yooyu yëpp rek ñoo bokk lu ñuy dox mooy lu ñuy génne gannaaw bu koor gi jeexee moom nag li tax ñu tuddee ko zakatul fitri mooy dañ ko yoonal gannaaw bu wéru koor yu matee ñu ko farataal nag ci atum ñaareel mi ci gàddaay gi atum ñaareel mi ci gàddaay gi ndax alayhi salaatu salaam ba mu ñëwee Madina tabaarakallaahu ba ci déwén jéem mu seetlu ne gaa yi dala am nañu seen loxo jotul seen gannaaw tabaarakallaahu mu bëgg ñi seen loxo jot seen gannaaw xomp ca lañ yor jox ñi seen loxo jotul seen gannaaw booba azaka azaka yi nga xam ne moom lañ xam Eh, boobu wàcce wàcceeguñ ko tabarakallahu am na ñu ne nag moom mi ñu tudd zakatul fitri gi liñ ci namm mooy azakaay jëmm xam nga al fitru day firi jëmm mooy fitratallahi alladi fatara nnaasa alayha foofu maanaam fitre gi ñu xam mooy tekki dog fitre gi bind lay tekki waaw bii moom jibil la lay tekki kon am na ñu ne mooy azakaay jëmm mooy jëmm june moo koy génne moo dañ ko koy génne maanaam jëmm june daal farata ci moom mu génne ko léegi nag xekkama bi nekk ci yoonal gi mooy euh, ñaar la dafa am ñaari xekkma boo xam ñaari xekkma yu tax yàlla yoonal ko comme ni ko Abdullah ibn Mas'ud waxee nee na alayhi salaatu salaam dafa farataal azakaay murum koor bi ci njëkk mooy ngir laabal aji woor ji ndax comme niñ koy waxee nit matut bi ñàkk léeg-léeg mën na def biir koor gi loo xam ne bëggeewuñ ko noonee su ko defee nag bu génnee azakaay murum koor gi ah tabarakallahu day mel ni loolee mujj na mat ñu ne it taxawaay ba mu ngi mel ni ñaari sujjuut ñaari sujjuuti jamaj yi ñuy sunnaal ci julli azakaay murum koor taxawaay bu mel noonee la am ci ci weeru koor xam nga bu fekkee da ngaa def luy waral lu manqué ci julli gi wala nga def lu yokk ci julli gi day am lu mu ci xaw a num tuddati waaye boo defee ñaari sujjóot yooyu mel na ni mel na ni mu war a mel kon nag biir koor gi boo ci defee yenn rëcc rëcc yi nga xam ne santuñ la ko woon boo génnee azakaay munu koor mel na ni mujj na mat ba nañ ko bëggee tabaarakallaahu ndax moo tax eh, tabaarakallaahu fuqahaa yi dañ ci am ay gisin yu wuute am na ñu ne farata la waaye ñenn ci borom xam-xam maalik yi ñoom da dañoo jàpp ne dañoo firee baaru farata ba ndax alayhi salaatu salaam dafa wax ne farada rasulullahi sallallahu alayhi wasallam na ko abdullah ibnu omar waxee farada rasulullahi sallallahu alayhi wasallam zakatal fitri min ramadana ala nnaasi soan min tamri aw soan min shair ala kulli abdin aw xorrin dakarin aw unsa min almuslimina léegi nag borom xam-xam yi wute ci imaamu shafii ngiram mi ak xana xanafi yu ne yi ak xan xanaabila yi ak ñenn ci waa Maalik gi dañoo firee baatu farata boobu ne aw jaba mooy farada mooy aw jaba ñoom lañu ko firee dégg nga yenn borom xam-xam Maalik yi dañ ne boo demee ci Muxtasar Seex Xalil sax ñëw na ci euh, laa yu laa yuqaatalu ahlu baladina ala mana zakat fitir maam dañoo jàpp ne moom du farata yenn borom xam maa loolu lañ wax li tax ñu ne du farata mooy bu ko ñenn bañoon joxe kenn du xeex ak ñoom te lislaam ji lu fi waye baña def manam farata bu fi waye bëgg rotal jullit ñi dañoo war dal ci sa kaw ba wan leen teg nga yoon tey ji bu bu bu aw ab dekk bañoon ne ñun dal ga ñu ci l'islam lañ nekk waye nan farata mom aj màkk moom bokkul ci suñu suñu suñu diine day war ci jullit ñi ñu dal ci seen kaw ba xamal leen diine ji amul luñ ci dag am luñ ci jël ak luñ ci bay te comme ñom nee nañu farataay murum koor ko ko baña a kenn dal ci sa kaw xeex yow nee na dal motax ñu ne murum koor kon sunna la su ini waye nekul farata waaw boo xolé itam batay euh charte yi tax mu war moy bu ñëk moy na nga nek ab julit ñëpp borom xam-xam yëpp depo ñaar rek moy nang ko man xam nga laaj na ci laajam sax naan manam ki nga xam ne mënu ko waye comme yukallifu yukallifullahu nafsan illa wus'aha motax boko mënu wacc na la waye borom xam-xam wa Malik ak wa Shafii ak hanabila yi dañoo dañoo wax ne képp koo xam ne daal moom euh, euh, maanaam da am nga dund gu des maanaam boo dundee ci li nga am mu des ca bis boobee war nga cee xomp jox néew ji doole yi dégg nga am na ñu ne nag ñi nga njabooti ñëpp yow say doom sa waa kër say soxna ak say yooyee li nga am bu fekkee buñ ci dundee ci bis bu mu des war ngaa xool ñi nga xam amul ñu dundee ci bis bi ñu jox leen ci tabaarakallaahu beneen point bi waxtu yu mu war fuqaaw yi ni ko xadis boo waxee boo demee ci xanafi yu ne yi li ñu wax ak maliki yu ne yi dañ ne waxtu wam war mooy waxtu wi fajar fenkee te loolu it ñu ko teg ci xadis bi wax ne ah, ibnu omar mu ne yuri saa sallam amara bi zakatil fitri qabla xuruji naas ila solaati laata nit ñi di génn dem ci jullikaay ba ci la alayhi salaatu wasalaam farataal azakaay mburum kon moo tax ñoom ñu ne ci ci ci la aza ci la farataal ñu génne ko ci la digle ñu génne ko bokk amara kon moo tax ñoom daal ñu gis ne bu ñu xëyee ci bisu korteg lañ ko war a génn kon loolu addis ci ñëw benn yenn boroom xam-xam yi maalik yi nag wax nañ ne euh, waxtu wi mu war mooy bis bi mujj ci koor gi bu jant fenkee bañ ne suba la koor te foofu it fañ koy sukkandikoo mooy képp koo xam da ngaa gën a ñu julli timis ba noppi ci biñ ne suba la korite azakaay murum koor la ndax ba muy war nekkul waaye képp koo xam ne it faatu ca waxtu woowee képp koo xam ne dangaa faatu gannaaw bu jant sooyee ci buñ ne suba la korite azakaay murum koor da war kon ñoom moo tax ñu ne comme boo faatoo gannaaw soo jant fekkoon na mu war la kon heure boobu rek mënees na ku cee génn ndax war na ba noppi tabaarakallaahu bu ñu xoolee it eh, borom xam-xam yi dañ ci am ak gisi ay gisin yu wuute am na ñu ne génn gi moom ci pepp rek la doon doon comme ni ko alayhi salaam doon defee ci sunna ni mu toll nag laaj na ko sax waaye ñaari kilo lay doon kenn ku ne la ngay dundee moo xam ceeb la moo xam mboq la moo moo xam moo xam moo xam lu mu doon rek ñaari kilo ngay génne ñaari kilo yooyee mooy sa azakaay mooy jëmm junne loolu lañ koy génneel tey ji ci gën jamono ci guddi gi ci gën jamono ci ci guddi gii nga xam ne euh, booba jant fenkagul lañuy génneel bàyyam nañ koy génneel kon ñaari kilo la yëpp ba borom xam-xam demee ba xool nag gis na daal léegi boo ko joxee nit ki bu demee di ko jaayaat du ci am valeur ba mu ci war a am ñu ne kon léegi nañu calculer ñaari kilo yooyu li muy toll ci xaalis ñu joxe ko defee da ngay xool da ngay dem ci bitig ba laaj ci ñaari kilos yi ceeb ku ko doon jënd wala ñaari kilos yu mboq wala ñaari kilos yu bési wala ñaari kilos yu sàñña wala nangam ku ko doon jënd ñaatay toll ñu ne la temps la nga jël loolee xam ne mooy azakaay murum koor génn jëmm kon loolu tabaarakallaahu euh, wax nañ ko ñañ koy jox nag mooy alfaqiru wal miskin faqir na ko aaya boo xe lil fuqaraa alladina uhsiru fi sabilillahi la yastatiuna darban fil ardi faqiir mooy koo xam ne li mu am doyu ko waaye waaye mënta yalwaan mënta yalwaan yàlla nee na kuy joxe nanga tàmbali ci ñooñu miskin mooy koo xam ne li mu am doyu ko waaye nag mën naa yalwaan kon ñaar ñooñu tabaarakallaahu lañ lañ koy jox lii borom xam-xam yi leeral ci loolee waa ñu ngi koy war a génneel képp koo xam ne ak dundam yow la war yaa koy génneel nit su fekkee ay waajuram dañoo ñàkk moo leen koy génneel moo koy génneel ay soxnaam génneel ko ay doomam képp koo xam ne daal ak dundam ci yow la aju yaa koy génneel su fekkee ajuwul ci yow waaye yaa koy dundalit eh, ñi ñi ak ak dund lam war ci ñoom ñoo ko war a génne waaye bu ko kenn génnee mu doy tey ji benn kër su benn waaye ne woon asaka ji daal ñun juróom nangam la war a doon di génne naa ko baax na en tout cas daal jëmm ju ne na nga ko génne rek fuñ ko mën a génnee nag mu baax ku la ko mën a génneel mu baax